asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ñu ngi leen di nuyu ni nu baaxoo di ko defee rek ayu bés yu jot si waxtu wi dellu si nañu fas yéene delloo buum sa boy boy ba àndaat ak yéen si seen émission société seen émission société seen xarit Chérif El Walid di leen ko defal ànd ak ay invité am si studio bi tey nag nu ànd ak sëñ Cheikh Basirou waaye it moo feggoog soxna Aminata Seck. nu war a jàkkaarloog soxna Zeyna si ak sëñ Sidi Fall waaye nag si waxtu wi may dugge si émission bi soxna Zeyna egg seegul Sidi Fall egseegul xam naa ñu ngi si yoon wi waaye ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ñaanal réew mi yëpp jàmm waaye di ñaanit jàmm si àdduna bi yëpp mbokk yi duma def lu dul jox samay invité nu nuyoo sunu paree rek nu daal di wéy xuus si émission bi sëñ Cheikh Basirou maa ngi day nuyu di la jàmm ana daan ngay nuyoo sunu mbokki auditeurs yeeg auditrices yi ñu àndal si waxtu wi. auzu billahi mina sheytaani maa ngi leen di nuyu waat bu baax a baax a baax di nuyu mbokki sunu kër FM waaye di nuyu mboolem ku nekk ci. bërëb bi di Cap Sénégal naataange di la nuyu bu baax yow Serif di nuyu mboolem ñi nu bokkal plateau bi ñëpp bàyyiwuñ kenn di siyaare ñëpp nag di baalu àq ñëpp di wàcce foofu sunu kàddu rek ba ci kanam. jërëjëf euh, Cheikh Bassirou waaw soxna Aminata Seck ñi ngi lay nuyu di la dara jàmm soxna si lan ngay nuyoo sunu mbokk auditeurs yi auditrices yi nu àndal si waxtu wi salam alaykum salam alaykum salam alaykum Cherif ñuy nuyu ñep di ziar ñep di nuyu ñep ñi nga xamantene ño bokk plateau bi di sargal ñep contane nak di bokk ci waxtaan wi yaakar rek nek liñ ci nara waxtane dina am njëriñ di len jaajeufal di sàkku yalla may ñu xel ak katan ba ñu mën fe wax lepp li nga xamantene dina jariñ ñep machallah jërëjëf euh, soxna Aminta Seck mbokk yi nu leen di fàttali ni yéen a ngi Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite mu lëkkaloo nag si partenariat ak sunu kër FM de la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi seen émission société mbokk yi tey nag nu fas yéene waxtaanee lu am solo bu nu fàttali ni ñun Sénégal am na lu nu daan bàkkee lu nu daan kañee. bokkoon na si ngor te gore bokkoon na si jom bokkoon na si fit bokkoon na si njàmbaar waaye bokkoon na si it dëggu ak sàmm sa kàddu tey nag jamono di dox àdduna di dox nu dem ba xool sunu réew xam ni dëggu googu ak sàmm kàddu googu wax dëgg yàlla jóge na fi tey muy lu doy waar tey nit mën na laa wax lii tey si suba balaa jant di sow mu génn sa ba set wecc waxaat leneen loo xam ne da ngay tiit da nga naan ndax kii moo wax lii kenn dëggootul kenn sàmmatul kàddoom te bu njëkk nag sàmm kàddu taxoon na kàddu rek doonoon na signature kàddu rek doonoon na contrat waaye tey loolu yëpp dañoo gis ni jóge na fi muy lu doy waar tey nag loolu la fas yéene waxtaanee dëggu ak sàmm sa kàddu parole d'honneur duma def nag lu dul walbatiku rek jàkkaarloog Serigne Cheikh Bassirou Cheikh Bassirou maa ngi lay nuyuwaat Cheikh Bassirou am na lu yàqu si sunu société bi de nanu meloon démb ak bërki démb am na lu fi jóge de bokk na si dëggu ak sàmm kàddu mu mel ni tey loolu dañ ko sofental walla dafa dem nag sax nag ba tegatuñu ko fenn si jamono. waa Cheikh Bassirou nga yaakaar lan moo waral loolu lu tax kenn dëggootul lu tax kenn sàmmatul ay kàddoom Cheikh basiru sa xalaat laa si bëgg dégg ban jàngat nga nu siy defar kàddu gaa ngoog auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim Cherif di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala may nu kàttan ak weer gi ñu tàmbalee émission bi ñu àggale ko te lépp li nga xam ne ñi ko ci am yéene wax ci lu baax rek ñu defe ko ni ñu ko bëggee ndax di xam ne ne rek dàquñ fee wax kenn gëppuñ fe xam-xam kenn tey rek tuur bi dafa tourné ba jëm ci suñu ñu jàpp ni war nañoo mën a génne xam-xam waaw Cherif danoo boole ñaar tey muy dëggu ak sàmm sa kàddu Cherif nit ki bu dëgguwul munta sàmm kàddoom nit ki bu munta sàmm kàddoom nit ki mënul sàmm kàddoom te dëgguwul li tax jafe-jafe yu bari am mooy nit ñi dañuy jaawale ñaar dañuy jaawale ki mën a wax ak ki dëggu dañuy jaawale ki bari wax ak ki société bi li tax bari fi mooy gone gu ndaw nga jël ko di ko yar loo koy yaree ay nar ay wax lu amut gone gi au lieu nga koy yaree loo xam ni baat bi boo ko waxee sax léeg-léeg bu koy foontu mën ci jëlee benn valeur waaye déedéet danga koy jéem a nax di ko jéem a tiital ci ay yoo xam ne yépp ay kàcc la yoo xam ne maa ngi ba di ci termo bi comme noonu ma ko waxee loo xam ne nga waroon koo wax wala nga waroon koo won waneen yoon wu gën a leer woowu waaye li nga koy yare mooy ay di ko nax ay di ko wax lu amut di ko wax yeneen yoo xam ne bu desee ci bopp bi rek mënoo wax a wax a wax ba mu waxati nit lu dëgguut ndax buy wax ba du wax lu dëgguut du ko tey dangay ngay sàmm da ngay dénkanteeg nit ki say kàddu léegi ngeen dugg ci biir néeg bi nga jàpp ni kàddu yi kàddu dëgg la waaye xayaasu billaah mukk dun masa wax dëgg dunu masa wax dëgg dunu masa wax dëgg li nga wax ak ñoom ci biir bu nu génnee dañ koy tasaare ci biti loolu bokkul ci sàmm kàddu sàmm kàddu mooy ñaari nit ñoo xam ne wax na li ñuy wax ci biir ñu tënk ko génne ko doxal ko ci biti kon sërif li ko waral daal mooy mag ñi ni ñuy comporté woo ak gone yi moom moo waral société bii nii nii nii nii nii maa ngi tuub bu baax. jërëjëf euh, Cheikh Basirou mag ñi ni ñuy comporté woo xale yi moo indi lii ah mu mel ni Cheikh Basirou wax jooju nag de neexul a randal nu lay san di la gërëm rek soxna Aminata Seck soxna si maa ngi day nuyu di la dalalaat jàmm. waa soxna si est-ce que fii nu toll ci jamono mënatuñu noo wóolu nit si kàddoom ah xaw na doy waar parce que dañoo gis ni képp ku fi yëkkati kàddoom ba nu dégg ko képp koo fi digaale reti mu jox la kàddoom bu génnee ni ko Cheikh Basir waxee génn si baset set wecc mu mel ni kenn fonkatul kàddoom kenn sàmmatul kàddoom waaw réew bu demee ba toll foofu soxna Aminata Seck yow ban jàngat nga nu siy defal ban gis-gis nga si am kàddu gaa waaw Chérif gannaaw bi ñu jaajëfalee waat ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy déglu bu nekk euh, sa sujet bi tey nag nekk phénomène bu doy waar boo xamante ne comme euh, garab rek ak ay branche am foo ne foofoo yoon ba da ngay dem ba ca biir nga retourné waat ndax doo gis euh, bout du tunnel bi. ndax dafa nekk loo xamante ne dañ koy gis ci jamono ji mu nekk lu metti nag ndax wóolu nit ci boppam moo jafe da ngay gis ki nga xamante ne comme ni ko euh, Cheikh Ba waxee léegi euh, Serigne Cheikh ki mën a wax ak ki dëggu ki bëri wax ak ki noppi daf moo tax mbir mi jafe ndax ki nga xamante ne dafa bëri wax dina wax lu amul dina wax lu mu gëmul dina wax loo xamante du bokkul ak dara dara dara ak ay conviction rek pour ki muy waxal gëm ko wala rek pour limu mu bëgg mu am ko ci ki muy waxal looloo tax nag boo ko jàppee da ngay daal di da ngay daal di di di jaxasoo euh, dama déggoon benn euh, sëriñ bu baax bu doon wax naan ki nga xamante mi ngi mi ngi judd ci ci wax dëgg màgg ci wax dëgg ba am ay at yu bëree bëree bari ci wax dëgg bokkul ak ki nga xamante ne dañ koo yar ci wax lu dul dëgg ak kilifa bu fi jógee boo ñëwee nga ne ko kaay nettali ma lu xewoon ci kër gi loolooy euh, li nga xamante ne moom lay jàng mu daal di koy màggaale mu nekk ñaar nit yoo xamante ne boo leen tegee day jafe lool day jafe lool pour nga am ci solution ndax ki tàmm wax dëgg mën na laa wax dëgg sax waaye ki nga xamante ne dafa bëri wax bu ñëwee yàq yëpp moo tax daal sujet bi euh, Chérif <laughs> métti na jaxasoo na pour ñu parampàccee ko dina métti lool lool lool. <laughs> waaw may nuyuwaat soxna Aminata bu baax ci kàddu yu am solo tàmbali ne la li ma diw def li ma diw def au lieu nga araftu ko wala nga duma mu bàyyi wala nga xupp ko ne ko ba bu ko defati dedet. danga koy bàyyi mu wax ba wax lu mu warta wax yow nga def ko am mer ak jàppee ko am mbégte fekk na yaa lor sa bopp di lor sa doom gone gi di màggee di màggee di màggee li muy jàpp mooy dafa jàpp ne lépp rek da ko war a wax day jàpp ne addunaam lépp rek da ko war wax loolu mooy indi bari wax ak doo wax lu doon dëgg beneen bi ci topp mooy mag ñi dikk ci kër fekk sa doom bi nga fekkee sa doom nga koy laaj lan ak ci kër gi diw lum la def sa yaay diw lum la def sa tànt lum la def ñaar ñi luñ doon def mu wax wax ba ne xawet nga reetaan bàyyi ko ci jàpp ne lii mooy régler affaire bi fekk ne yow yaa ngi lor sa bopp Cherif lii moo indi problème bi problème bi ci kër gi yëpp lii moo ko indi. waaye soxna Aminta yaakaar naa ni li nga si wax uh, am solo te boo yóbboo baaraam foofu ñoo ngi Cheikh Basirou si yow laa jëm si. da nga wax lu am solo da nga ni mag ñi ni comporté woo xale yi tey yow de da nga yaakaar ni moo jur lii lépp waa tey Cheikh Bassirou mën nga nu wax comportement mag ñooñu mooy lan nan la mag ñi comporté woo loo xam ni dina yàq xale yi ba tax dootuñu dëggu dootuñu sàmmati seen kàddu waaye it boo doon wax ak ñoom lan nga leen di wax boo leen doon yedd tey ndo len di yedde seigne Cheikh Basirou kaddu gangok waaw serif non dong la demee ni ko mag ni defé dal mo deppou wut ak yar bi nga xam mom lañu la bi sallallahu alayhi wasallam jangon mo deppou wut ak valeur yi nga mom la fi suñu mag ni bayyi won ndax bu bu la goné daan dik di la netal li nga daan def moy dang koy araftu bu mu amati sa yaay diw dalaa dóor moo la war a dóor bu ma ko déggati waaye déedéet loolu dara amatu ci léegi kay li am mooy nun koy defee nu net liy gën a foore bëgg loo ñoo ñëwee ci gër gi loo fi bàyyi woon boo dikkee ñu waxaat la ko noonu la affaire bi demee kon ma teg foofu sama loxo ba ci kanam incha allah. Chérif xam nga euh, dañu toll jamono ji foo xamante ne euh, nit ki day ñëw jàkkaarlook yow. di wax ak yow di waat surtout di la ko waatal waat yu rëy yoo xamante ne yow sax danga naan kii li muy wax dëgg la bu fa jógee day génn rek daal ne alhamdulilah l'essentiel mooy ne que man li ma bëggoon am naa ko gëm nañ ma bon c'est bon bu suba leneen beneen situation bu ñëwee buy wax ci ci ci ci ci occasion boobu du ko sax tey day fàtte ne bërki démb waxoon na le contraire léegi nag situation tey bi am tey dina si wax waataat waataat waataat ba nga ne gongo léegi bu fa jógee vaar yi ñuy def léegi vaar yi ñuy def di ko tegaat moom ci boppam ci lay doog a rendre compte que ne ah man kat bërki démb waxoon naa lii tey waxaat naa lii mais du am humilité du am du am euh, sagesse du am euh, na xaw ma nan lañ ko mën a waxaat waxati euh, kersa bu war a tax mu daal di reprendre at boppam en ne man kat li ma waxoon du dëgg parce que tey jii nag nañ waxante dëgg mag bu wax tey A bu subaa mu wax B su bëggee bëgg la wax ne que A plus B la loolu doo ko gëm donc day daal di camper ci li mu wax tey fàtte li mu waxoon démb. loolu mooy situation bi euh, dañ koy gis ci ci ci kër yi léegi génn na ci kër yi parce que ci xale yi la doon commencé xale yi màgg nañ après xale yi ñenn ñi am nañ situation ñenn ñi dem nañ feneen ñenn ñi dugg nañ fii euh, ñëpp ay daje te ñëpp bokkuñu ni ñu yaroo loolu mooy tax wax ji euh, par yenn saa yi muy jafe ndax nit ki nga xamante ne dama naan gor mais est-ce que gor amati na xëy na am na xëy na amatul ah, yàlla rek moo xam. ak nit ñi nga xamantene ñom ñi ngi continuer di deggu parce que tay jii ni li nga mëna am ci deggu ñak deggu mënu la ko may je pense à mon avis parce que nit ki bo démé ba li ngay wax chaque jour muy teggeeku muy teggeeku ah nit ñi tamit amna ci ñen ñenn ñoo xamante ne dofuñu dinañ dem ba benn instant tamit li nga leen wax doto leen doyati bo waxé dañ naan hmm, rek dal di dem lolu doto amati crédibilité parce que euh, yaakaar naa ne crédibilité ci kàddu daf ci wara a am solo solo solo solo ndax kàddu rek mooy nit boo soloo ba pare nekk sa kër sangu ba set solu ba jekk maquillage sol daal defaru génn taxaw ñu ne ah kii de kilifa la kii de nit la kii de lii la mais nga wax rek ñëpp tourné loolu gàcce googu je ne pense pas ne nit nit waxuma jullit waxuma chrétien waxuma ak leneen mais nit boo xamante ne mi ngi noyyi nit boo xamante ne mi ngi ut mi ngi bëgg dara ci àddunaam je pense que danga war a sàmm sa kàddu sàmm sa dignité loolu moo lay yóbbu fu bëree bëree bëri. jërëjëf euh, soxna Aminta am na solo waaw mais soxna Aminta euh, gor ba tey mu ngi fii gor am na waaye nag euh, gor su jafe aha gor su yàquwul moo jafe fi nu toll nii si jamono loolu moom dëgg la sëñ Cheikh Basirou defe naa ni mbir mi doy na waar waaye nag li si gën a doyati waar mooy ni ma ko waxee rek waxu penc. waxu pénc ndax xëy na nga wéet ak nit sax wax ak moom sa kàddu teggeeku xëy na nit ki dina la xeeb waaye mën naa mu yem seen diggante mais ki taxaw si pénc mi yëkkati kàddoom damay wax ni mu dugg si nopp ñëpp mu wàññeeku teggiwaat loolu indiwaat leneen lu safaan ak loolu indiwaat ko dugalaat ko si nopp nit ñi waaw kooku ma ni moom si boppam moom si boppam yow ban gis-gis nga am si nit ki def loolu. lan nga koy tuddee yow ah euh, sëñ Cheikh nag maa ngi la siy déglu nu ànd seeg yow euh, Cheikh Basirou vraiment njàngat mi am na solo ah te déggee nañu ko xel macha allah soo na Aminta si yow lay dellusi si soxna Aminta réew bu demee ba nga xam ni lu fa nit di waxati nit du ko gëm kàddu gu nit jëkkati. lu kàddu ga neex neex lu kàddu ga niroog lu dëggu dëggu dëggu bu la wanee gannaaw nga ni day wax rekk te nag mu niru dëgg baa boog mu nekk dëgg parce que tey lu la nit wax bu la wanee gannaaw mu teggee teggeeku rawatina nag kàddu gu ñuy yëkkati si biir mbooloo wax si biir mbooloo ñëpp ni tekk di la déglu nga wax ba pare ñëpp jàpp si loolu ah ñaari fan ñetti fan nga dellu si waagu wax lu safaanoog loolu te fa ko waxee woon ñeme nga faa taxaw waxaat ko fa waaw mais soxna Ami yow nit ñi bu nu demee ba mel noonu yow lan nga ci jàngatee ban gis-gis nga ci am yaakaar naa ni war naa mën a yàq sunu societé de. li ko wax a ko wër euh, sëñ Cheikh Basirou ak a nekk dëgg macha allah euh, soxna Aminata Seck. jamono jii de bu fekkee nii leen ko dina doy waar lool ndax dina dem ba kóolute dootul am suñu biir kenn dootul wóolu sa morom léegi ku yëkkati kàddoom nu ñu waxul dëgg wala boo léegi mën naa wax leneen ah muy lu doy waar nag waaye yow ñooñu boo leen doon yedd tey lan nga leen di wax. ñaar ya nit ku taxaw ci di wax ñu koy déglu foo ko fekk borom daraja lay doon waye dama la jënd leen waxuma la ci waxuma la ci réew mi waye aduna bi la daj ñi warona wax ñu leen di déglu ñi warona wax dëgg ñi nga xamne buñ waxee dañ leena wara wax ne dëgg la ñi nga xamne buñ waxee seeni wax dañ ko waron jël diko partager ngir nit ñi déglu ko sëriñ ñooñu ñoo yore wax lu dul dëgg ndax tey ñi waroon wax ñu leen di déglu foo leen fekk kenn ku ne tey bu la nit ñi toppee dinañ la indilaat vidéo wala ojo boo xam ne wax nga ci lu teggeeku wallaahi nga xam ne léegi kenn mënatu la gëm kenn ndax ki nga waroon a gëm bu demee ba mënut a wax loo koy gëmee. kon kan ngay faral gëm léegi may wax ne kooku moom benn ngi ci moom workat la ndax du wax lu am beneen ngi ci moom ab naafeq la ndax wax muy dañ moom foo ko fekk naafeq ko yem ni ko alxuraan di waxee di ko leerale rek ci surtu bàqara daanaka ba mi leeral naafeq yi mooy ñi nga xam ne dañuy dikk taxaw di wax ci kaw te fekk la ñuy wax nekkul ci ñoom mooy ki nga xam ne saa bu waxee mu dañ rek waaw serif daal warkat daal moom rek moom mooy wax muy dañ te léegi jamono ji ñu gis ay gorang fi waaye ñu gore amatun fi jërëjëf. muy lu am solo soxna Aminata Seck ma leen di fàttali ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction. di yëngatu nag si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam waaye luy jëmale suñu réew Sénégal kanam lu jëmale suñu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal naataange di yëngatu si càmm gi mbay mi napp gi di yëngatu si santé faju wér-wérle di yëngatu si éducation sàkku xam-xam joxe xam-xam waaye itam di yëngatu si justice jub jubal jubbanti lëkkaloo nag si partenariat ak sunu kër FM di la première radio pan africaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi seen émission. société tey nag nuy waxtaanee lu am solo Cheikh Basirou si yow laay dellu si sëñ Cheikh Basirou nan wax lu fi nekk te dund mooy lu doy waar sunu homme politique yi sunu homme politique yi dafa mel ni dañu xaw a doy waar si jamono yi nu toll nii lu nu wax tey bu ëllëgee nu génn si teggi wax ja teg fee wax lu safaanoog la nu waxoon te nag. àndunu seeg kersa àndunu seeg gàcce àndunu seeg jomb muy lu toy war mais ku toll ni ñu nuy wolu di len jox rew ak ñu bëgg nu wolu len jox len rew mais bu nu démé ba yor comportement yu mel nonu bu nu démé ba nu seen kàddu waay seigne Cheikh wax deug yalla nak lolu war nga nu ko jangatal lan mo si sa xalat ban gis-gis nga si am gangok xam nga Chérif loolu moo tax tey ju toll foo xamante ne ku ci nekk da ngay jéem a nax sa morom parce que tey jii man su ma gisee ne que Chérif nga baal ma su ma gisee ne que Chérif tey jii du wax dëgg tey bu ñëwee ci man wax ma lii su demee ci ci ci Serigne Cheikh Ba wax ko lële su demee feneen wax ko lële kon donc bu ñëwaatee ci man di wax xëy na li muy wax dina ma intéressé waaye dama naan kii de waxul dëgg mais dama koy déglu ba mu wax ba pare man tamit ma daal di indi man tamit sama bëgg-bëgg. comprendre nga naxante bobu foofu lañ toll jamono ji motax ah dina dina dina difficile pour ñu am solution par contre moi je pense que bu ñu dello par exemple ki nga xamantane mom dafa judd ci wax deug ñu yar ko ci wax deug mu mag ci wax deug peut-être kooku amna référence dans sa vie ses parents papam yaayam mamam ay magam kon donc koku warut a mën am influence ben nit bu wax deug ba mu war ko changer ba mu war ko changer ba mu war commencer mom tamit du wax deug pour beug lu mu am wala du wax deug pour ñu gëm ko je pense que fofu la fofu la nek fulla fayda ji nga xamantene mom nga wara am dafa wara saxu ci deug en plus c'est pas très loin ñi ngi fi am suñu ay sëriñ yu baax Sénégal ku wax wax suñu sëriñ ñi ngi fi jóge wuñ fi hein dañu rek mais histoire chaque jour ñu ko gëm-gëm chaque jour ñu wax ñu ne ko tel lii la gëmoon lii la gëmoon ba tey lii moo indi lii kon donc référence ci jël ci référence ci suñu suñu waajur yi suñu mag yi suñu kilifa yi je pense que yow doo réer yow personnellement doo réer ba ñu war la dugal ci yenn erreur yi ndaxte euh, tey jii euh, nit koo gis mu nekk nitu euh, fukki ba nga juróom-ñaar chaque jour mu wax lu dul dëgg chaque jour mu wax loo xam te ne da nga naan kooku au moins ci këram ci ci arbre généalogique am am na si kenn koo xamante ne waxkatu dëgg la ca kër googu

loolu boo ko bëggee dangay ngay daal di dellu dem sa kanam ngay dem mais euh, boo fekkente ne buñ la nee sëriñ bi de moom lii la fi defoon lii nga ne non non jamono ji bokkul ñu la nee kilifa gii de lii la fi defoon nga ne jamono ji bokkul chaque jour même situation yi la ñuy dundaat ay kilifa yuy wax te du du dëgg kilifa yuy wax du am ñoo xamante ne pour ñu am dara ñoo xamante ne pour ñu bëgg dara jaral na leen tey jii ñu tëral benn nit rey ko ba pare jóg dem woon du woon man donc. moo ngi noonu daal Chérif doy na waar daal. jërëjëf euh, Cheikh Bassirou defe naa ni dëgg rek ay dëgg soxna Aminta Seck si yow laa jëm si nag soxna Aminta xëy na am na ay tur yu Cheikh Bassirou lim léegi mais defe naa ni bu nu toppoon ñi wax waxeet ñi seen kàddu teggeeku defe naa ni fii ba suba duñ fi jóge waaye dafay lu doy waar. soit nu wóolu la ba jël réew teg sa loxo jël réew teg seeni loxo bokk ñu ne ko teg seeni loxo dinu indil ay wax waxeet yu kenn xamul lu mu doon fonkatunu seen kàddu sàmmatunu seen kàddu muy leen lu doy war waaye itam nag bu fekkee ñi nga xam ni ñoo jógoon ñoom itam di dagaan baatu askan wi ba ñu bari wóolu leen ba ànd ak ñoom ñoo waññeeku di wax waxeet seeni kàddu di teggeeku fonkatuñu seeni kaddu mané ni loolu yëpp buñ ko boolee njàngat ko soxna Aminta ban gis-gis nga si am lii fan la mën a yóbbu suñu réew ñi ngi la siy déglu. Ah, xam nga lii fu mu mën a yóbbu suñu réew moom ñëpp xam nañ ko ndax suñu réew bi moom gis nañ ko mi ngi nii bokkoon na ci 25 pays yi nga xamante ne ñoo pauvre te Covid bi ñëwaat xam nga ne dañuy gën di ndërmeelu. donc am na yenn yoo xamante ne donc mooy mooy loolu daal du du du avancer mais wax waxet bi xam nga lépp dañ ne ci escalier benn benn euh, lay lay commencer ci compter tamit benn lay commencer dañu njëkk a comme mosuñu woon xam ay wax waxet ah dañu jékki-jékki ñu gis wax waxet ñu koy fowee di ko kii di ko kalañaatoo démystifier ko euh, peut-être ci ki ko waxoon la wala ainsi de suite ñuy dem ba léegi nag moom woy la ça gêne même plus personne

lépp lu ñu waxoon dootuñu ko defati à moins que mu nekk seen intérêt parce que wax ji yëpp lu ko la kii lu ko ëmb yëpp Chérif c'est l'intérêt personnel ou bien l'intérêt d'un groupe ou bien intérêt wu ma am ci yow nga am ci man intérêt partagé loolu kese la moo tax nit ñi léegi sàmmatuñu seen kàddu je pense que ne loolu moo tax dañuy gën di pauvre et le Sénégal et l'Afrique dañuy gën di dellu gannaaw di pauvre parce que amatuñu benn référence xoolatuñu suñu référence nitu Afrique yi dëggu yi nekkoon Afrique nga xamante ne boo ci lim doo waay da ngay lima lima lima lima lim ba sonn ñi ngi fii ah ñi ngi fii euh, récemment rek le président de de Niger bu Niger ou Ghana le monsieur qui est décédé récemment lan lañ ko waxal ci ci bu mu gaañoo moo gën a correct nit kuy correct c'était un président. moo gën a nite nit kuy nite nekk na président ba wàcc lu mu wax dawaa waa dëkkam maa ngi dem maa ngi leen fii bàyyi waaye suba su ma fi gisee naka sa dul noonu maa ngi ñëwaat il marchait euh, tout seul ci dëkk bi te amul garde du corps amul dara nit ñi di ko nuyu di taafantoog moom c'était comme si il n'a jamais été président parce que kooku dafa dëgg woon donc am nañ ay référence ay ay ay nit yu baax yu nekk Afrique ay nit yu baax yu nekk Sénégal ci ñoo xamante ne mën nañ jël ci ñoom euh, référence mais naxante bi naxante bi au final c'est le naxante qui est partout ñu ki bëgg nguur ki bëgg lu mu am ki bëgg dépense ci jëkkër ak jabar ci mag ak rakk partout c'est le naxante. Chérif ñu dégg la bu baax xam naa bëggoon nañ ci ñëw waaye dañ doon xaar question bi egsi fi dama ci def ben jàngat rek dembu ma deg ben plateau ma deg ñu laaj ci digënté Ousmane Sonko ak directeur ancien directeur Dakar Dem dik ñu né ñom ñaar mu né Ousmane Sonko day bëgg directeur ancien directeur Dakar Dem dik ak Barthélémy ma déggoon fi ma liiroon fi ci ginnaaw ci journaux yi li ñu doon waxante ak seen waxante ya ak ni mu demee tey jii ñu taxaw ne dañuy juboo foofu laa njëkk def sama jàngat waaye man bu ma maître Moussa Diop bu ma ko bëggee wóolu jamono bi muy nguuru ku ne déggoon na fi lim wax ba ne plainte da ci am ku ne déggoon na it Barthélemy li mu wax maître Moussa jóg ndax ne Sénégal moo ko ñor ñooñu nan leen leen di gëmee Serif nan leen leen di gëmee bu fekkee kii senegal moo ko ñoroon tax muy wax xëy suba ñoom ñëpp dem opposition taxaw ne dañoo àndaat wàcc wax jooju mu fay te sénégalais yi taxoon koo jóg sénégalais yi. kon kan nañ wóolu Cherif sunu homme politique yi danoo bàyyee wax dëgg sunu homme politique yi danoo rusa wax dëgg may tuub nag ci kàddu yi ndax lu tax mooy képp koo ci xool tàmbalil tey ci président Abdoulaye Wade ba tey nga gis fi benn politicien bu ne la waxu moo fi waxoon lii te deful lii rek amul gisal comme Idrissa Seck gisal malik Gakou mi ñuy romandaat ak kaneen ak kanena ak kaneen ku mer xass sa morom ku mer wax sa morom lu bon ku mer jew sa morom ta fekk bun la joxe ngir nga lek rek yow nga jël xëccat raxas leral ba mu leer melni dara musul am koku nan len lay gëmé loolu moy ñaka gëm sa kaddu ñàkk gëm sa kàddu moom ci Sénégal buñ ko dee wax ci sunu homme politique yi la ñuy tàmbali démb dama dégg président am ñu seeral ko fi lu am solo muy mooy ki nga xam ni ak li ànd bi neex neex bu ko leereen bu dëgg jotee tey dala koy wax bañul ci nga mere ko bañul nga ànd seeg moom moom mu wax ba àgg ci ne digganteem moom ak maître El amna ben benn réunion bu ñu dajewu bi Me El Hadji Diouf waxee wax ji dëppoo ñu waxante ba tegati dënd loolu mooy nit waaye politiciens yooyu man gisatu ma leen fii maa ngi am yaakaar nag ci président Chérif may bu baax ci vocal bu gudd bi. waaw Chérif ñooñu de li may wax ak ñoom mooy nit ki bu responsabilité bu mag tegee ci sa kaw lu toll ne am réew tegu ci sa kaw chaque jour ngay dëkkal nit ñi ci sa ci seen nopp yi jox leen ma réew mi ma defal leen ci nangam la la war rek mooy sàmm sa kàddu ndax lor benn nit moo gën lor fukki nit benn baaxu ci nag ñu xam ne li ñuy wax ak li ñuy wax ak nit ñi bis ngi ñëw ci bis dañu danañu dajeeg sunu borom ñu bàyyi xel na nit ki lépp lu mu waxoon dina ca jaaraat waaye nit ki lépp lu mu dige woon te mënu ko it dana ca jaaraat Sénégal nag da ci ëppale ni ko soxna Aminata waxee léegi comme exemplaire bi mu jox bi mu joxe nga xam ni lu ne ma mënees na ko ceerooy ci moom rawatina ci sunu njiit yi man daal ma leen di wax ne lépp lu ñuy def ñu ciy bàyyi xel sunu diggante ak sunu borom lépp lu ñuy wax ñu ciy bàyyi xel sunu diggante ak sunu borom bu nu bëgg nguur bay wax lu ñu mënut bu nu bëgg nguur bay wax lu ñu amut Chérif daal lii mooy li ma leen di digal. jërëjëf euh, soxna Aminta Seck vraiment njàngat mi am na solo di la sant di la gërëm rek euh, Serigne Cheikh Bassirou. ma ni bu nu demee ba nga xam ni as gor su yëkkatee kàddoom mën na soppali kàddu ga ñëw taxaw ni man waxumoon lii lee laa waxoon ñëpp di ko wekki bët parce que su ma waxee loolu am na lu tax euh, ma wax homme politique yi defe naa même Aminata si biir njàngatam wax nag ñooñ dañu nekk ñoo xam ni dañu diggaaleeg ñoom suñu réew bu nu defee lenn lu jaatul rekk ay millions de sénégalais lañ ko def xëy na sax am na kenn koo xam ne dafa wéet nit wax wax ja teggeeku xëy na mu loo kooku loolu si mais ñii seen benn wax rek boo xam ni lor na rek sénégalais yëpp la lor des millions de sénégalais loolu tax il faut nu taxaw si ñoom Cheikh Bassirou ñii tey boo leen doon yedd bëgg leen a delloo si. lan ngay wax ak ñoom sunu njiit yi sunu kilifa yi ak ñi ñuy tuddee kilifa bokk te wax dëgg yàlla seeni kàddu jaratula dóor sa doom ni ko soxna Aminta Seck waxee sëriñ Cheikh Basir wax ma waxal ma ak ñoom waaye jërëjëf euh, sëñ Cheikh Basir soxna Aminata Seck man dama tiit xaw ma ko tiitul mais man personnellement moom dama tiit parce que bu ñu demee réew ba kenn wóolatul kenn. ah réew ma day xaw doy waar nag rawatina ba nga xamee ni ñu jiite réew màkk ñenoon danaan ñanaan bëgg a jiite réew màkk ñenu yaakaaru nag ñëpp danoo dem ba nu teg gi seeni kàddu dëggootunu ba kenn wóolatu leen waaw soxna Aminta bu nu tolloo foofu te nag daanaka tollu nañ si mais yow lan nga gis nag léegi le peuple sénégalais noonu la war a jóge taxawee ngir lu mel nii dañ fi parce que nag euh, doxalin bi ñaaw na waxin bi ñaaw na jëfin bi ñaaw na parce que as gor saa wax kàddoom di teggeeku as gor saa buy wax di di boppam mooy wax waxeet mbir ma dafay daal di xaw doy waar soxna Aminta ban taxawaay nga yaakaar ni ñun le peuple sénégalais moom lañ si war a am pour lii jóge fi soxna Aminta maa ngi la siy dégg yàlla baax na soxna Aminta mais loo gis seenu koy liggéey il faut nu defar génération yi di ñëw pour ñoom it bu nu ñëwee am lu nu indaale loo xam ne dina wuteeg lii nga xam ni dafay yàq société kon nag loolu ñun ñoo si war a taxaw léegi soxna Aminta di la sant di la gërëm rek rafet na teg tegu na si yoon sëñ Cheikh Basirou. ah dama lay jox kàddu gi rek nag daanaka waxtu wi xoj nañu nga tàggoo lan ngay tàggoo suñu mbokki auditeurs yeeg auditrices yi ñu àndaloon si émission bi. waa Chérif xam nga passé nañ ko Sénégal moom passé na fi ko ñëpp yaakaaree fa passé nañ ko mais bon dañuy wax rek ne que du ñu xàddi ah. dañu ne bu ndox tuuroo an mbàqa des ñu ne xaw ma euh, dañuy rootiwaat non dañuy dem rootiwaat waaw dañuy dem rootiwaat te defe naa ne am na fi ñoo xamante ne bu ñu demee ci ñoom di rooti dinañ am ndox bu bëree baree bëri bu gën a set sax ndox bi tuuru macha allah euh, di ñu fi gis nag ñu doon ñuy ñuy def naka sa dul noonu moom ñooñu la ñu mës a gis ah, ba juddoo ba tey ñooñu la gis. damay dégg euh, ku ci mel ne kilifa de Y'en a muy wax benn kàddu boo xamante ne mooy loolu dafa tudd benn nit fii ci euh, dëkk bi mu ne kooku man ba ma juddoogul ba tey mi ngi mi ngi mi ngi ci dëkk bi di wax ba léegi nii donc ñooñu la ñuy gis ba léegi ñi nëbbu ñi nga xamante ne dañuy wax te kenn gisu leen mais ñi ngi wax lu dul dëgg ñi ngi def lu dul dëgg mais au moins seen bos feeñul dañ leen di ñaanal yàlla soppi seen xel yi Euh, soppi seen gis-gis yi seen seen bëgg-bëgg yi ba ñu delloowaat euh, seen bopp ci yàlla mën a wax luy dëgg ndax nit moom danga war a wax dëgg moom ndax bu buñ lay rey sax waxal dëgg ah man de sekk gisaguma foo xamante ne toll naa fa bay wax lu ma dul dëgg pare na saa yi nag su may tooñ dama naan je très rarement mais nag wax lu dul dëgg daal je ne pense pas que ne mës naa ko wax daal maanaam.

am nañ beneen gis-gis am nañ beneen dégg-dégg parce que boo ciy xool ñu si bëri ñi ngay gis dañuy bañ ku leen ku leen ku leen jàmm bëgguñu euh, ñu manqué leen de respect euh, bëgguñu bëgguñu ñu leen ñu leen saaga donc ñooñu yàq am nañ yaakaar ci ñoom xëy na bu ñu tolloo fenn fi fekk na ñoom ñu dem ba màgg à l'âge de 35 ans 40 ans 50 ans peut-être les choses vont changer on espère on espère on espère vraiment rafet na sëñ Cheikh Bassirou ñu nit ñu lay sant di la gërëm rek soxna Aminata Seck lan ngay tàggoo mbokki auditeurs yeeg auditrices yi ñu àndaloon si émission bi waxtu wenn xocc kàddu gaa ngoog ñuy jaajëfal ñëpp rek di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di kontaan participer vraiment ci émission bi amoon na solo euh, ñu yaakaar ne nag dina am njàngat gu bëree bëree bëri loo xamante ne nit ñi dinañ ci barkeelu man de jang na ci lu bare wow, waaw jang na ci te ma ngi ñaan yalla yalla baye ñok suñu xel baye ñok suñu man man ak suñu katan ba ñu mëna def lo xamantene du doon lo xamantene dañ ñu comme ni koy faral di waxé di sant yalla bu baaxa baaxa baax di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp waaw sha allah. waaw Chérif may nuyu ñëpp di xaar ñëpp. di wax ne sama tàggatoo rek mooy di bàyyi lawaat xel nit ñi daal ñu xam ne nit lenn rek moo koy jëriñ mooy mu sàmm kàddoom nit lenn rek mooy mën a tax nit ñu wóolu ko mooy mu sàmm kàddoom nit lenn rek mooy mën a tax fu mu wax ñu ne waaw muy mu am ngor da gore nit ki bu amul ngor gorewul kenn du ko mën a wóolu kenn du mën a sàmm am yaakaar ci moom te mooy waral lu ne kon daal maa ngi nuyuwaat bu baax di nuyu sama naataango bi ma bokkaloon plateau bi soxna Aminata Seck di la wax ne li nga fi wax lépp rafet tax xam-xam génn na jàngaat naa ci yow lu bëri di la nuyu Serif dina jox jox ci wàccuwaay di nuyu mboolem auditeurs sunu kër FM yëpp ak mboolem euh, auditrices yëpp bàyyiwuñ kenn jërëjëf. yow it euh, nu lay sant di la gërëm soxna a Seck waaye it euh, di sant euh, sëñ Cheikh Basirou mbokk yi lii moo doon tey seen émission société nu waxtaanee li nga xam ni lëmbee na jamono waaye ut mi ngi yàq sunu société wax waxeet bi ñàkk fonkati kàddu ñàkk dëggu muy lu doy waar mbokk yi leen si mënoon a wax jeexul leen si waroon a wax jeexul. liñ si naroon a wax jeexul waaye waxtu weenu xoj fii lañ leen di tàggoo di leen jox dig daje fii ak ayu bés incha allah jàmm ak jàmm ba booba jëre ngeen jëf.